waaw kontaan naa trop kontaan naa trop parce que c'était difficile ndaxte ba rapport ak match passé difficiloon na difficiloon na trop mais alhamdulilah lii la ñu bëggoon te am nañ ko te ñi ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam bu ñu jël ko bi yóbbu ko Sénégal parce que xam naa ne ñëpp ñuy xaar si loolu aussi te yàlla baax na yàlla ko yàlla may incha loolu moom loolu moom fii lañ koy fii lañ koy dugal mën nga rete rete dugal moom mooy am nagam yaa ngi koy am rek mën nga ko dugal mën nga ko rete mais bu ñu sañoon bu ñu rete léppay dugg football la daal des fois nga dugal mu gën a a yomb rete bi a dugal gën a jafe rete bi gën a yomb manque de concentration prise concentration terrain moom man bu ma xasee ba dugg moom man avant match damay concentré moom day fekk des fois eh, daa wër dëgg mais bu ñu soñoon mu lu ñu dóor mu dugg moom du ñu sax rek. final Sénégal Algérie lay doon déjà Algérie dina am public bi nga xam ne nii dina peut pression lay nekk ci équipe nationale bu Sénégal wala motivation lan lañ ko mën a jàppee. waaw parce que dana dana métti moom parce que mooy équipe bi organisée dina métti trop mais ñun moom suñu objectif moom mooy.